bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillaahi allazii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhi nushuur réew Rewmi FM 97.5 del soit nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ngeen di si ànd ak seen mbokku Ibrahima Drame ci wàllum xarala gi jaawo jàlloo ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala nu ngi julli di silmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ma ñu xéewalal ba ñu jëfandikoo kaddu bu ñu yenkeewal di nelaw ñu jëfandikoo ko ci ay waxtu su néew ci ginnaaw waaye bi léegi ci xéewalam ci askanu jullit ñi mu baaxee ñu ba ñu fekkee julli waxtuy fajar ñoo ngi koy ñaan moom buur bi tabaraka wa yal na ñu yàlla nangul xéewal boobu ñu baaxe mu doon cadeau bi nga xamante ne daf ko jox majaanan mu doon gratuite laaju fa peyoor te kenn du ko jënd ci moom te muy nelaw mu doon cadeau joo xamante ne ki am ki ñàkk ñëpp ci bokk yem ndax ñëpp koy aajo ba tax na ki muy yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu kado jooju yàlla baaxee ñu bu ñu ko jëfandikoo ci waxtu yañ ko jëfandikoo ba noppi lañu war mooy ñu sant yàlla ci xewal jooju mu ñu xéewalal te mooy nelaw ñu sant ko ci ne ko alhamdulillahi alladi axyaana baada ma wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawey mboolem xeetu cant yu mataley ñeel nañ la yow yàlla yow dong yaaka moom ndax yaa ñu may ñu nelaw nelaw bi nga xamante dang ña suy faat faat nga ñu si nelaw woowu ba noppi nga delloo ñu suñu ruux ndax nelaw dee bu ndaw la su ko defee nga ne ko bu ñu jeexalee suñu dund bi ci kaw suuf si de ci yow dong lañuy ñuy dellu moo tax nga ne ko wa ilayhi suur ci yow dong lañuy dellu kon saasu su jullit bi yeewoo ci nelaw lii la ko yonentu bi ne na wax na wax alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu kawe yeg yu matale ñeen lañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundalaat baadama amatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla lañuy ñuy dellu subhaanahu wa taala tax na mbokk yi ñu di leen fàttali ne rek ñu ngi ci bésu àllarba àllarba tombeeg ñaar fukki fan ci weeru zilxijja ñu di leen fàttali ne rekk tey mooy ñaar fukki fan ci weeru tëbaski ñu di fàttali suñu bopp di leen fàttali ne des na suñu digganteeg tamxarit ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan benn moo des suñu diggante tamxarit ñu di ko muy ñëw ñuy ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala ashura di sahrullahil muharram di weeru tamxarit fukkeelu fan bi di ashura ñuy ñaan yàlla buur bi tabaraka yàlla waxtu boobu buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye ñuy tàllal suñu yoxoo di ñaan yàlla lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi calendrier ya jullit yi di doxee ci seen dundu tey bésu àllarba bi mooy ñaar fukki fan ci weeru tëbëski di weeru zilxijja ba léegi ñu xam ne moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante cinq des na benn weer ñu daal dugg ci mille quatre cent quarante sixième année bi te mooy weeru tamxarit bay dégmal nii di ñëw buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bay te lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu gën leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg tamxarit boobu ñaar fukki fan ak benn mbokk yi ñaan ba ñu am ci bés bi tey mooy ñaan bu gàtt bari solo lool waaye neex a mokkal tamit ñu fas yéene koo baaxeek mbokku auditeurs yi fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bii di jaar ci waxtu wi ñaan bi mooy yow jullit bi del dëkk say yoxo di ñaan sa boroom di ko ne allahumma inni audu bika min ilmin laa yanfa bur yàlla jullit bi dafa war a ñaan boromam ndax lam ko bëgg ñaan ni lam ko bëgg a muslu ni lamu bëgg nii ngir yàlla musal ko ci yàlla dong moo ko ci war a mën a musal amul kenn ku ko mën a musal ca la mu bëgg a ñaan ni ku dut yàlla du médecin moo ko ci war a mën a musal du buxaaba moo ko ci war a mën a musal du scientifique moo ko ci mën a musal du intellectuel moo ko ci mun a musal kak ko mën a musal ci la ma bëgg ñaan ni kooku du kenn kudut yàlla ndax yàlla dong moo ko ci mun a musal musluwaay bi antu yàlla dong moo ko mun a musal ca la mu ragal ba mu di ko ko ñaan yàlla dong moo ko ci mun a musal musluwaay bi doon lu antu feneen fu ko sàkkoo du ko fa am ndax manu ko ci keneen ci ko nar a sàkku du antu ndax kooku manu ko ndax nekkut fa moom ba tax na yàlla maka moom yàlla maka man ndegem ci moom la nekk ci moom dong nga war a sàkku musluwaay bi nga bëgg yàlla musal la ci ba tax na jullit baa ngi nii war a tàllal loxoom ci kanamu boromam muy sàkku musluwaay bu tollu ni mu ne ko allahumma buur yàlla allahumma buur bu kawe bi inni mansa sa jàmbu bi de audu bika maa ngi ngir nga musalma min amalin ci jëf ji nga xamante ne laa yurfa duñ ko yëkkati buru yàlla man sa jaam bi maa ngi làqu fa yow ngir nga musal ma ci jëf ji nga xamante ne kenn du ko yëkkati fa yow jëf ba di yëkkatiku di jëm fa yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal ci loole ndax yàlla moone ne ci alquraan ilayhi yas'adu kalimu tayyiba wal amalu saalihu yarfa'uhu kaddu ju baax ja nit ñi di jibal ci kaw suuf si ci seeni gémmiñ kaddu ju baax jooju day yëggal boppam day doon benn ascenseur bay yëggal boppam dem fa yàlla bépp kaddu ju baax ba jullit bi di wax ci kaw suuf si yàlla ne ci téere bi ne ilayhi fa moom yàlla yasaadu kalimu tayyiba wax ju tey te dagan wax ju tey baax day yëggal boppam dem fa yàlla subhaanahu wa taala mu teg si ne walla amalu saalihu yarfauhu jëf ju sell jëf ju laab jëf ju yiw yàlla ne maa koy ñoddil sama bopp ma yëkkati ko mu ñëw fa man ndigami yàlla muy ñoddil boppam jëf ju yiw ya doomu aadama di jëf ci kaw suuf si rawatina yow jullit bi kon ñaan ko mu la nga bañ a jëf jëf ji nga xamante ne kenn du ko yëkkati mu dem fayal yàlla moo tax nga di ko ñaan ne ko allahumma buur yàlla inni audu bika man sa jàmbuloof bi maa ngi làqu fa yow ngir nga musal ma min amalin laa yurfa ci jëf ji nga xamante ne du yëkkati ku ñëw fa yow yàlla nga ma musal ci jëf jooju ndegem jëf ju baax la yàlla di yëkkati di ñoddil ba pam mu di ko andi fa moom kon nañ leen bokk ñaan yàlla yal nañu yàlla musal ci jëf ji nga xamante ne di ko yëkkati ndax jëf ba yàlla di xool ci jëfu doomu aadama bi mu di ko accepter mu di ko nangu ba ko yëkkati fa moom loolu jëf ju baax dong la ndax loolu la wax wal amalu saalihu yarfauhu jëf ju baax moo koy ñoddil boppam mu jëm fa moom yàlla kon nga déggee ci beneen wet bi mooy jëf ju baaxul moom taxul ñuy wax kon yow jullit bi boo ñaanee yàlla yan na la yàlla musal ci jëf bum du fa moom kon ñaan boobu war na la kon ñunit nit ñu ngi koy tàllal suñu yoxu di ko ñaan di ko ne allahumma buuri yàlla inni audu bika ñoo ngi làqu fa yow yàlla yàlla nga ñu musal ci min amalin la yurfa ci jëf ji nga xamante ne doo ko yëkkati yàlla nga ñu xirtal ci jëf ji nga xamante ne danga koy yëkkati fa yàlla mu doon amalu saalix ba nga xamante ne eh, yarfauhu day yëkkatiku ñëw fa yow borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu fas yéenee dégtal mbokk auditeurs yi lenn ci ngéneelu lañu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ne bi léegi yow bi ndegem danga ñaan yàlla ngir mu musal ci jëf ju dut mën a yëkkatiku ñëw fa yaw kon lii jëf la boo xamante ni kenn ku nekk ci pencum jullit ñi ñu ngi koy def saa ne rawatina ci kanam tuuti li gën bari ci askan bi dinañu génn seeni dëkkuwaay dem fa ñuy daane seeni doole dem kër-kër ngir fàggutee fu wërsëg baleen yàlla tasal ci kaw suuf si génn wi nu këru jullit warul mel ni keneen ku dul jullit jullit bi dafa am nu mu war a génnee dëkkuwaayam ba nga xamante ne moom la ko yàlla wërsëgal mu dëkk fa yonent bi yàlla xamal xam-xam bu kenn xamul yonent bi yàlla xamal xam-xam bu kenn xamul mu won ko kenn gisul yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci xadiisu anas bun malik radiyallahu anhu nan la jullit bi di wara genni génnee këram ana wan musluwaay la jullit bi di wara wax ngir sakku yàlla arko ci lépp loo xamante ni seytaane dina ko jax-jaxal julit bi kon nañ leen bokk déglu sahaabi bi di anas radiyallahu anhu lamu ne noonu la bi jàngalee ne julit bi nii la war a génnee dëkkuwaayam su ko defee képp topp ci waxtaanu fajar wi ci réew mi fm 97.5 bu fekkente ne nii ngay génnee sa dafa dëppug na yonent bi jàngale kon ñu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin bu dee dafa wuuteeg ak lu yonent bi jàngale nag kon nañu jàpp aloo bi ñu gém koo jëfee su ko defee ñu bokk am ci njariñ yàlla suñu borom bindal ñu yiw ci saa yi ñuy génn suñu kër ñu defee ko comme na ko yonent bi jàngale génn kër boobu ñuy génn yàlla bindal ñu ko yiw ndax ki mu yónni moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam addikru inda al mandil yii baat la jullit bi di war a wax jamono bu muy génn këram sa dëkk waaye ba nga dëkk jamono ba ngay waaj a génn comme ci kanam tuuti rekk jullu naas li gën bari ci nit ñi dinañu génn seeni dëkk waaye dem faggutee fu wërsëg dem faggutee fu wërsëg ba ñuy faggu ca bari baleen ko yàlla defal ndegem ñu bari dinañu bàbbeeku génn dem fàggu seeni wërsëg ci biti kon yow mi bokk ci daairatul muslim yow mi bokk ci waa këru jullit ñi déglul sa yonent bi nee na nii nga war a génne sa kër anas nettali ñu xadis bi radiallahu an an anasin bun malik radiallahu an anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama qaal ida xaraja alrajulu min baytihi fa qaal bismillahi tawakkaltu ala allah laa hawla wala quwwata illa billah qaal yaquulu xiina izin hudayta wa kufayta wa wuqayta fatatanaxaa lahu shayaatiin fa yaquulu shayaatiinu alaaxar kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wo wuqiya rawahu abu daawuda wa saxahahu albani mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bu mag di anas bun malik radiyallahu anhu nekkoon ci këru yonentu bi di fa doon ka doon daan dooleem ci keppaaru yonentu bi sallallahu alayhi wa saxaabi wi di anas moo ñu nettalil xadis bi ne ñu anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal nee na naka suñ yonent bi alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu ida xaraja al min baytihi bépp waay bay na a génn ci këram fa mu wax ne bismillahi maa ngi tàmbali génn bi may génn ni maa ngi koy tàmbali ci mu teg si ne tawakkaltu alallah wakkerlu naa sama lépp fa yàlla laa xawla amul benn pexe wala quwwata amul benn kattan illaa billahi lu pexe kattan bu tukkee ko fa qaala yaquulu xiina izin yonent bi nee na dinañu wax jamono bi waa ji waxee lii dinañ ko wax ne hudayta orienté wu nga sa bopp fu jara orienté wu sàkku nga hidaaya fu sàk fu jara hidaaya gindeeku nga fu jara sàkku gindeeku kaay bu mat sëkk nga gindi sa bopp wa ku fayta sàkku nga kaaraange fu jara sakku kaaraange aaru nga fu jara làqatu kaaraange bu mat sëkk am nga ko ndax fa mu gënee baax nga ko tibbee ka yore kaaraange gu mat moom nga ñaan ngir mu aar la wa wuqiita te sàkku nga ndimbal sàkku nga la nga xamante ne musluwaay sëkk nga àndal ndax ku yore musluwaay ju mat ci kooku nga sàkku ngir mu musal su ko defee yonent bi neena na fatatanaha lahu shayatin ñu daldi ko musal ci loraange ya seytaane yi na lor waa jooju ba tax na day am discussion waxtaan bay jaar ci diggante ñaari seytaane yi moo tax yonent bi ne fa yaqulul cheytaanul aaxar meneen cheytaane bi day wax moroomam ne ko kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wo wuqiya ana lan nga foog ne loolu lañu mënal ci waajoo xamante ne sakku na ñu gindi ko te ko sàkkoo foofu mooy fu jar sàkku gindeeku kaay te moom fala ko sàkkoo mooy fa boromam te moone ne wa wuqiya sàkku nañu sàmm ko fu mu sàkkoo ne fa lañ ko war a sàmmee foofu mooy fu jar sàkku kaaraange te mooy fu boromam wa wuqiya te aaru na fa mu sàkkoo kaaraange nag foofu mooy fu jar sàkku kaaraange lan nga foog ne kooku de mënal nañ ko dara tontu bi mooy ah kii de xanaa ñu bàyyi ko mu dox doxam rek kii mënaluñu ko dara moo ne mbokk yi lii jarul ñaan est-ce que jarut mokkal est jarut ñu di ko wax te moo gën la rëdd di ko jéggi te moo ne ñaan bi moo gën lañuy tuur di ko jéggi ndax lenn ci ñaar yooyu dëppoowul ak njàngale yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga la yonentu bi jàngale neex naa jàng neex naa mokkal te guddul waaw neex naa jàng neex naa mokkal te guddul te boo ko defee mooy li aar mooy li lay sàmm te mooy la nga xamante ne teg nga sa tànk fu nga xamante ne mooy gindeeku kaay ba jubba ndax yàlla nga sàkku mu gindi la gindi na la teg na la ci siraatul mustaqim te ci yàlla nga sàkku mu aar la am nga kaaraange ju mat sëkk sécurité tàmma nga yor moo ne ci yàlla nga sàkku ngir mu sàmm la boole nalak malaaka yoo xamante ne seytaane yi duñ la jege fenn te doo jege fa seytaane yi nekk moo tax meneen seytaane bi mu muy laaj moromam mu ne ko kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya lal nga njortu ci waajoo xamante ne waaji aaru na sàkku na njéggal te sàkku na kaaraange fam ko war a sàkkoo kooku daal meneen seytaane bi lu mu koy tontu mooy xanaa ñu bàyyi ko mu dox doxam mu wuyal kooku mënaluñu ko dara la tax yàlla aar la la tax yàlla sàmm la la tax yàlla orienté la ci bon orientation moone baat bi la yonentu bi yenkeewal baat bi la yonentu bi dig ne nanka wax booy génn sa kër moom nga jëfandikoo baat bi dong ngay jëfandikoo nga nekk ci benn protection boo xamante ne foo ko natt weesu na ko waaye leneen li nga def lu dut la la yonentu bi baaxee loolu sa yëfu bopp la moo ne bi jàngal askan bi dañ ne neex naa jàng neex naa mokkal te guddul moo ne bismillahi tawakkaltu ala allah laa hawla wala quwwata illa billah lii ngay wax la muy tekki mooy yow julit bi boo xasee war a génn sa kër na ne bismillah maa ngi tàmbale génn bi may waaje génn nii sama kër maa ngi koy tàmbale ci turu yàlla tawakkaltu alallah wakkirlu naa sama lépp fa yàlla laa xawala amul benn pexe bay dukkat ci suuf si wala quwwata amul benn kattan bay dukkat ci kaw suuf si illaa billah lu pexe ak kattan ba tukkee koo fa yàlla pexam yàlla dong moo fi nekk di dukkat kàttanu yàlla dong fi nekk di dukkat su ko defee nga xamee ko noonu yonent bi nee na ki wax lii xaal dañ koy naan yaquulu xiina izin jamono bi mu waxee lii aa ña ko wala lor ña ko wala jax-jaxal ña ko war songu xëytu seytaane ya ko war a songu ci biti ki wax lii dañ ko naan o oh, hudayta orienté nga gindeeku nga wa ku fayta doyloo nga cikki nara cikki jara doyloo wa wuqiyta aaru nga sàmm nga sa bopp sàkku nga kaaraange sàkku nga sécurité bu mat sëkk ci ki jara sàkku sécurité sakku nga ndimbal sàkku nga kaaraange fa jar sàkku kaaraange su ko defee yonent bi nee na fatatanaha lahu ñu daldi ko sorel lépp lu seytaane yi wal ko lor walla mu sore ñu sorel ko lépp lu seytaane nar ko lor ci génn boobu muy génn ba tax na ñaari seytaane yi dañuy am discussion dañuy am waxtaan ba ñuy waxtaan kenn ki da ko naan kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ana lal nga foog ci waajoo xamante ni sàkku na ndimbal sàkku na kaaraange sàkku na fa boromam orientation bu baax sàkku na gindeekukaay ba mat fa boromam na kaaraange bu mat fa boromam sàkku na sàmm ju mat fa boromam lan nga foog ne kooku loolu lañ ko mënal meneen seytaane bi lu ko war a tontu mooy xanaa dara kii moom mënaluñu ko dara lala ko yóbbee la tax seytaane yi mënuñu ci yow dara mooy baat bala yonent bi ne booy génn sa kër nanga ko tudd moom nga tudd mooy bismillahi tawakkaltu ala allahi laa hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala allahi laa hawla wala quwwata illa billah mbokk yi lii la yonent bi jàngale ne julit bi na ko wax jamono bu muy génn kiram ndax turu yàlla wàcc na fi ñetti yoon boo ne bismillahi wax nga fi allah nga ne tawakkaltu alallahi wax nga fi allah nga ne laa hawla wala quwwata illa billahi wax nga fi allah turi allah turi yàlla wàcc na ci ñaan bi ñetti palaas bismillahi benn tawakkaltu ala allahi ñaar laa hawla wala quwwata illa billah ñett wallahi képp ku saxoo di ñaan ñaan bi jamono bi ngay génn sa kër yonent bi nee na seytaane yar nara jax-jaxal ci mbedd bi seytaane yara war a jax-jaxal fa ngay jëm dañ lay sore duñ la jege ndax yàlla moo aar moo lay sàmm te moo lay orienté fa nga war a jaar ba doo dajeg seytaane yàllay jax-jaxal mbokk yi ki ñu wax lii mooy suñu sang bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla may dégg topp ñaan bi mooy bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billah mooy ñaan ba yonentu bi baaxee xeet bi ne képp ku di jullit boy génn sa kër ñaan wi nga war a ñaan yal nañu ko yàlla manloo ñu di ko salloo saasu ne yal nañu yàlla may xol ak lammiñ ja koy tudd saasu ne waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi nara jibbal bërëb bi ñay tas xibaar ci nasaraan ñu ngi ni taxaw ñu war leen jibbal béréb bi ci wàllum technique bi mooy seen mbokk di jaawo jàllo yi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa an yajcalana min fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ixfad min alfitan ma dahara minha wa ma aqulu ma tasmacuun baaraka allahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafaani allahu wa iyakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu